bokk ci kuréel bii di Gambia Press Union di ki nga xam ne nag moom mu ngi wuyoo ci turi Ousmane Marong moom nag daal dina bind ab bataaxal di woolu ki nga xam ne nag moom moo di Moustapha mooy na tekki nomba tànkam gannaaw bi nga xam ne nag mu ngi yore ab njiit ci kuréel bii di Gambia Press Union te itamit si seen loi yi nga xam ne yooyu lañ sampa eh, tere dina nit ki nga xam ne nag mu ngi yore place njiit nag mu daal di mun a am bérébu taseekaay xibaar boppam. ci ab waxtaan bi xam ne nag moom Moustapha Keddabo dal dina ko am Paradise TV dal dina wax ne man dama door bérébu taseekaay xibaar bi nga xam ne nag daf dee def ak gestu ma tuddee ko Malagen maa ngi ko dooroon ñett ñeenti weer ci gannaaw te bu ma defee loolu nag wone na ne man duma mun a doxal li nga xam ne nag moom moo di palaasi njiit ci kuréel bi di Gambia Press Union ndax lu waaye kuréel bi dafa wax ne kenn du mun a yore li nga xam ne nag moom moo di place yi njiit su fekkee ne yow da am li nga xam ne nag mooy di béréb bi tasekaay xibaar bi nga moomal sa bopp waaye lii nag xelaati nit ñi wute na ci nekk na xëccoo nag ci lu yàgg li nga xam ne nag moom moo di xëccoo bi sax man suma bopp maa ko door ndax dama ci waxtaan ak samay naataangoo ak samay xarit ci suma xalaat ah, pour taxawal béréb bi taskir xibaar bii di Malagen nekk na sax béréb bu gestukaay du béréb boo xam ne nag ab uteekaay xaalis la loolu wane na ne man du ma nekk ni koo xam ne nag dinaa mun a yore place njiit nit ñi bëri ñi xam ne nag ñoom laa bokk jiitee kuréel bi nag wax nañ ne mun naa continuer yore suma place njiit bi waaye man suma boppa ah, def ma dama gis ne nag lii waruma ko yore maa ngi door béré bi tasekaay xibaar bi di Malageen ci weeru avril ak weeru mai mun naa wax ne eh, si jeexatali mai la ndax ñuy ngi waroon a génne su njëlbeeni xibaar ci ñetti fan ci weeru mai loolu mënut a mujjewut a mun a antu ndax bés boobu dafa tase li nga xam nag moom moo di World Press Freedom Day loolu mënutoon a antu moo waral nag ñu door ci jeexantalu mai jeexantalu weeru mai juin juillet ba léegi ñu ngi nii ci weeru ogos loolu soo ko seetee eh, ñetti weer ak lu teg waaye comme ni ma ko waxee mbir mi nag nekk na loo xam ne nag nit ñi ñu ngi ci xëccoo ba léegi ndax lu waaye kuréel bii di GPU dafa wax ne nit ki doo mën a taxaw xeecoo place yi njiit waaye waxut fenn ne eh, nit ki nga xam ne nag yore na place yi njiit ba pare mu mun a amal boppam bérébu tasekaay xibaar ñaareel bi dafa wax ne eh, nit ki warut am am bérébu tasekaay xibaar ndax man li ma am loolu soo ko seetee duñ ko ne tasekaay xibaar mooy béréb bi enquête kaay la bérébu gestookaay la ku yore woon eh, place bu ma yore nag eh, di wuyoo ci turi Babacar Cissé moom it tamit amoon na bérébu taskat xibaar xibaar bu mel ni suma bos ay eh, tey tamit ki nga xam nag moom moo nekkoon secrétaire général bu Gambia Press Union di Seexu Seexu moom it tamit yore woon na lu nu mel moom it tamit yore woon na lu te tamit am na nit ñi bari ñoo xam ne nag ñu ngi yore place yi njiit ba pare ñu ngi amee seen béréb bi tasee xaay xibaar te soo seetee eh, bérébu taskati xibaar bii di Malagen nekkul di indi benn koom-koom man suma dund mu ngi ci freelance journaliste mooy maanaam di jox xibaar ci yeneen i bérébu taskati xibaar yi man suma xaalis bu may moo dee jot foofu laa dee jël pour dundale suma bérébu tasekaay xibaar bi le ndax société Malagen dafa nekk bérébu tasekaay xibaar yi pour askan wi di ko jëlee ci suma poos man yàquma benn loi ndax soo seetee su bataaxal bu ma bind pour bàyyi sama place bi nag ñenn ci ay suma naataangoo ñi ma doon liggéeyal dañ bind ne ñoom ànduñu ak li nga xam ne moo di sama xalaat nangu woon nañ ne mun naa bàyyi place bu ma yoree waaye nanguwuñ li nga xam ne nag moom moo di sama xalaat mooy maanaam lu lu waral ma ma bàyyi liggéey bi mooy maanaam luwaa bu ñu binda yow noo ko sottalee sa xalaat ci sama xalaat man suma bopp mooy ne duma war a mun a yore place bu mel nii ndax yore na bu bérébu tasikaay xibaar buñ doon defar luwaay eh, kuréel bii nag luñ doon am suñu xalaat mooy maanaam lan moo waral ñu sampa kuréel bu mel ni mooy maanaam taxaw nit ñi xam nag ñoom ñoo nekk di yëngu ci ron kuréel bi loolu moo di njël njëlbeeni banqaas bi nga xam ne nag kuréel bi samp nañ ko ci te tamit kuréel la boo xam nag nit ñi màcc xam-xam lañ ci wàllu tas xibaar ñoo ci daje. dañ ko sampa tamit pour dooleel liggéeykat yi mooy maanaam taskati xibaar yi te si loolu la doo mën a nekk nit ku jiite ba pare nga mën a taxaw sa boppa mooy maanaam suñ seetee eh, nit ki nga xam ne nag moom na bérébi taskaay xibaar moom du mun a taxaw ñaari tànka mooy maanaam dooleel liggéeykat yi te itamit mu gis ne moom war naa dooleel boppam. loolu moo waral ñu indi luwaa bu mel nii ci ron kuréel bii nii mooy maanaam doo mun a yore bérébi tasikaay xibaar ba pare nga war a mun a yore place njiit eh, pour mun a dooreel ñaal yi nii yëpp du nekk loo xam ne nag dina mun a sotti si man lii xalaat bu rafet la ñi binda luwaa boobu war nañ koo binda te man ànd naa ci Moustapha tekki bu mu tekki nombu tànkam ñi bari nag rafetlu nañ ko nañ ne lii nag la njiit bu baax war a def be bu mu doon tekki nomba tànkam eh, si dimanche bi nag Moustapha nekkoon eh, ki nga xam nag moom moo yore place yi vice président ci kuréel bii di Gambia Press Union eh, depuis bu buñ ko tànnee woon ci atum 2018 tànn bokk ci kuñ tànnoon di ki nga xam ne moom moo di Sirif Bojang Junior